bismillah mooy tey dossier Karim Wade bi lé tribune yéene kaay ne waa nguur gi a de te Monaco déedéet vingt di mi de mi ngi ak ak ak de ay droit de dama ne lii day am ndeetaluwaat la ma ne la nguuru Sénégal gi Karim Wade daal dina koy gañewaat de nguuru politique gu nga xam ne xeex yi nga xam ne mi ngi xeex Karim Wade ca bitim réew yi doomu Abdoulaye Wade bi da leen a gañe dëgg la direct yow fa de nguuru Sénégal gi kay lajjati nañu de sagati nañu de ci kanamu justice internationale bi bitim réew waaye nag ginnaaw mun naa ko ah candidat au parti démocratique sénégalais ma ngay xaar dogal bi nga xam ne nag moom moo war a jógee ngir ñibbisi Karim Wade mi est ce que fekk bitim réew ko loxo maar day taali maar day taali loolee la ay avocat wu Karim Wade day di xalaat seen xel day ko wax de fekk Karim Wade ca bitim réew goo kaye daal di koy jàpp laa wax looloo tax ay avocat wu doomu Abdoulaye Wade ji day daal di ñuy bind nag Interpol police bi kon séq waaw waaye ministre de l'intérieur bañ ko ca laajee day waaw daal dinay weddi kon mbir moom mais moom ministre de l'intérieur day mooy organiser élection yi day marti daali sur quotidien en tout cas deuxième tour bi day ci wàllum parrainage ba waaw te juróom-ñaari attakat yi nekk ca conseil constitutionnel kon ko day waaw mujjul jàll ko kawo de maa la ko wax ma ne la Idrissa Seck ak Maître Madické Niang waaw daal nañu kon ci wàllum parrainage ba alaaji Malick Gakou day ah, nekk na léegi ASP maanaam mooy association des sans-parrains waaye alaaji Malick Gakou day nee moom daa jaaxle ah, Malick Gakou ne waaw parce que conseil day la mu sàkk woon mooy juróom-ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett di huit mille huit xam ne day dama koo war a defaraat ko waaye man yemuma ca ndax lu dooloo ñeen fukki junni di quarante mille parrain laa la wax laa leen indil conseil constitutionnel tolloo fukki région ak benn laa la wax nga ko koy li mu am ñu bëree bëri amuñu ko waaye daal li jox cinquante deux mille neuf cent onze pare loolee matul cinquante trois mille lii tax man lii ma jaaxal libération yi ne kaay ne loolee na kon buggaan koy tani mi lay naxarlu na bu baax a baax alaaji Malick Gakou mi nga xam ne kon éliminé nañ ko ci élection présidentielle yaa ilaha illallah waaye buggaan day jàpp ne ne gis nga Karim marti itali njiital a Bougane Gueye Dany day libération yéene kaay nee na jox na nag rendez-vous askanu Sénégal rawatina ay militant tey di la ci àllarba ji day ca place de l'Obélisque ngir opération faxas Macky Sall la gouvernement bi dañ leen a war a faxas évidence yéene kaay de maître Madické na ñëpp Madické daal fexe na ba bokk ci élection yi li a jaaxal ñëpp ah waaw waaye nagaa yor bi ñuy woowee fajar é eh, waay Samba waaw benn seen milliardaire la eh, de ah waaw tribune yéene kaay ne waaye Alaaji Malick di maire Guédiawaye kontaan na ca waay jële ay waay jële exclusive yéene kaay ne mën caaxaan caaxaan gu bon rek booy Aliou le petit la xam lu bon rek Aliou Sall yamu jële déedéet parce que daal dinay tuumaal Ousmane Sonko mi ne ne bande filao yee Ousmane Sonko da caa am i waaw Aliou Sall ne Alaaji Malick Gakou day maa ngi koy woo ngir mu ñëw nag ànd ak président Macky Sall Aliou Sall ne de bu ñu éliminé Gakou kay dëgg la danaa da koo de dëgg daan waaye koy woo nag ngir mu ñëw jàppale président Macky magistrat yi enquête yéen kaay na dëgg nga xam ni kon moom la ñuy def nag wàllum justice bi président Macky Sall day waaw nee na nguur gi daal matukaay yëmbat yëpp dana ko ko ca def ngir défendre kon magistrat yi laa la wax ci fànn yëpp nag ndaxte suñu justice bi day li ba bay wiy mbuus ñuy doog a jóg déedéet Mamadou Badio Camara ci 24 te kenn du leen tiital laa la wax léegi songo bi nga ni kon ñu ngi songo magistrat yi ne fii daal loi fii dox yoon force restera à la loi te nguur gi nag matukaay ya ca war yëpp danañ ko ca jël ba mu neex ngir défendre magistrat yi laa la wax Abdoul Mbaye ci Dakar Times waaw nee na sama baay day le suisse ba mbay ah wallaay bu doon moom la kenn du ko alifa di ko manipuler mukk te Macky Sall nag dinaa leen xamal leen li mu wax ne moom la am ci xaalis déclaration de patrimoine la mu am bokkul fausse déclaration de patrimoine la def politique de du ay Abdoul Mbaye wax te naa leen xamal leen gis nga Macky Sall ci boppam war ta ci candidat yi la wax dañ ko war a waxul dëgg nit ñi laast Assane Diouf day waaw weeru février bii di ñëw ni lé lañ koy bàyyi waaye nee nañ ko dootoo wax de ñaari atu yàlla bokk na sa juróom-ñeenti weer yoo xam ne day du rajo du télé wax la dul defati enquête yéen kan dé ñetti atu yàlla kay lañ koy noppiloo mardi itali réew mi quotidien ba kay day gàddaay loo na kii di Assane Diouf ba noppi tëj kay ne soowal les ko yéene kay ne Papa Diouf waykat ak Wally Seck waaw c'est la guerre totale marti tali seytaane duggaat na si diggante dama ne Papa Diouf day ci benn audio dañ koy tuumal ne moo ci saaga kii di Wally Seck waaye Papa Diouf yeddi na koy ba dëgg ca suuf nee na loolee du moom kor bébé baas yemu ca parce que Papa Diouf day daal dinay songo Wally Seck rek ak waa këram marti tali seen famille ne ko man duma ko yàq ci ko xale yi man Papa Diouf kenn mësuma dégg ci ay coowal trafic oto te kenn mësuma dégg ci coowal fóodiye eh, la ilaha illallah dégg sax bettul kenn laast Sadio Mané Aliou Cissé waaw dañ leen a gagné door nañ leen fii ci seen biir réew laa la wax meilleur joueur Mohamed Salah gagné na Sadio Mané meilleur entraîneur Hervé Renard gagné na Aliou Sénégal kay zéro point la fi am laa la wax Macky Sall dee ñu sagal sax jox nañ ko bopp raayo sur saane Sadio Mané day waaw Mohamed Salah jaar na ci kawam de teer bëri na day yaakaar waa Aliou la bu mujj la tas yéene kaa gi ne Sénégal kay jël na milliard am koy wanteer sandi un milliard noonu ci mbedd mi <laughs> alaaji man de damaa yaakaar ne xanaa nguur gi xamuñu farata yow champion d'Afrique yi biir si soccer ñi ngi nii gagné coupe d'Afrique recevoir uñu leen sax arbitre yaa ngi nii subvention sax mënuñu ko a